te diw moom mu wax di góor koo xam ne daal rafet diine ak mbaax rek lañ xam ci moom ba noppi nag gaawu koo wax dana wax ci kanam su fekkee fa saasay saasa la ko wax waaye bi mu toll nii mooy tom bi nga xamee ne da ko yéex a wax mbaa boog ci gàttal daal du fa saasay saasa kon moom dañuy jàpp ne tooñ na waa ju baax joojee daal koy caw caw yi waxal nit lu mel noonu te mooy caw ko juróom fukki yar ba noppi nag bu fekkee ëmb na danañ ko jëtan boole ca xanaa jàpp ni ëmb bi njaaloo dong la su fekkee ni ëmbul nag ca lañu wutee ci ndax des na ko géttan géttanu njaaloo wala dees ko géttan géttanu njaaloo wax ji gën a waru mooy waaw daañu ko géttan géttanu njaaloo loolu mooy atteb jigéen ji góor gam waxal loole tamuy ku rafet diine ku baax moom luy atte ba mooy dañu xam nañ ko tooñ rek kenn du ko waatloo rawante nañu koy jéem a joxeloo can xel xalaatu ko day jàpp ne jigéen jee ko waxal loolu caw jigéen ja noonee ñu waxe moom nag moom dara du ko ci war du can du leneen moom lay wax ci way wu sori wali waa ju baax jooje daal moom kenn du ko wax dara dañuy jàpp ne tooñ nañ ko rek way woowu nag daa waroon a sës fii nga toll te sësaliwu ko fii boo demee ba àgg ca nga jàpp ne rek jàng naa ko tàyyi ko baamu foofa su jigéen ji ne diw dey dama siif njaaloog man te nag gaawu ko wax yaa ngi toll ci tomb yi nga xam ne waxu ko fa saasa bi yoon nag diw mooy mu wax te ku nu umpalee mbiram xamuñu ko ci ak maandooku mbaax xamuñu ko ca safaan ba foofu am na teqale ndax dañuy seet ba xam jigéen ja xam nañ ko mu di ko jub kuy jéem a jubal di moytu bon wala dañ koo xam muy koo xam ni du wattandiku dara gàccoore rek lañ xam ci moom wala dañ ko umpale xamunu luy mbiram muy ñetti tomb suñu xamee ne moom moom jigéen ji ci boppam lan ko xamee mooy ak mbaax ak watandiku lu bon ba noppi daa am yaari wax yoo xam ne day wuute buñ teg ci kaw genn wuute gu ko jiitu woon mooy wuute boobu du ab yax bu ne fàng waaye dañoo gis benn wuute bu ko jiitoon ñu far ko yan ca wuute boobee mu daal di am yaari wax benn wax ba dane dañ koo war a gétan gétanu xaste maanaam yàq na derub góor googee daal di koy caw juróom ñett fukki yar ñu wax nag ne dañ koo war a caw ndax xas ga mu xas yàq derub kookee ñoom duñ ci waatloonte góor ga ci mu waat naa li ñu ko jiiñ dëgg laam du dëgg jooju wax daa mel ne moo gën a wóor ndax ndegam góor ga mu waxal lii moom nun ca dëgg-dëgg dañoo umpale mbiram xamunu ku baax la xamunu ku bon la jigéen jee jekki-jekki wax loolu rek say boo ñu caw ko caw yi ku xas nit waxal ko lu mel noonu moo gën a wóor te du jar ñuy woo kooko di ko waatloo mbaa dara loolu mooy benn wax bi wax ba ñes nag moom dane góor ga ci boppam lañuy woo waatloo ko mu waat miim li ko jigéen ji waxal su fekkee ne waat na miim ñu bàyyi ko mu dem deesu ko fayloo can mbaa dara bu ragalee waat nag ñu ne jigéen ji yow waatal li nga wax te mu fay la can su ko defee jigéen ja bu ñemee waat moom góor ga ragal a waat daal koy war a jox can bu góor ga ragalee waat rek ñu ne jigéen ji yow waatal dëgëral li nga wax su waatee dëgëral loola rekk jàpp ne góor gi war na koo jox can ndax daa mel ne lim koy jiiñ day dëgg loolu moo di ba ñu xamee ca jigéen jë ak jéem a baax ak sàmm boppam xamuñu ci moom gennuk bon mu des nag bu fekkee jigéen jë lanu ko xamee daal mooy kàccoore du moytu dara baa boog danu ko umpale xamunu ku baax la xamunu ku bon la yooyu yaar kon dañuy jàpp ne dafa tooñ góor googee rekk daldi koy caw juróom-ñetti fukki yar raxase ko derub kookee mu waxal loolee ba noppitam nag géttan ko géttanum njaaloo géttanum njaaloo nag léeg-léeg ñu war koo caw téeméer yar léeg-léeg itam ñu war koo sànni ay doj ba ba muy faatu moom lay takk ci sanaa bi di wax naa fa in juhila xaaluha aw xulima kawnuha gayra mawsuufatin bisiyaana fal xukmu kama taqaddama fi lmashhuri biddiin min annaha tuhaddu lizina walxazf wa in xulima kawnuha mawsuufatan bisiyaana fa fi wujubi xaddi lxazfi xaleha lirrajuli lmajhuli lxaal qawlaani muxarrajaan ay qawlaani laa nassa fihima wa innama huma mabniyaani xala xilaafin aaxar waxalaa kawnihaa laa tuxaddu yaxlifu li la anil yamini xalafat moom bu doon sësalee wax yi lu ci nekk sësaloo lay gën a jàppandi ndax dalaa waxoon ci gannaaw ba jigéen ji waxee ne diw day dama siif njaaloog man dañ gis ne kookee ku baax la ku rafet diine waaye tom booba moo doon ba mu ko waxul fa saasa fii mu toll nag mooy ba mu ko waxee fa saasa ba mu ko waxee fa saasa moom nee nañ moo xam dafa jàpp ca moom la nga miitu ko ni moom mii mooma siif moo xam dafa ñëw rekk wax ko fa saasay saasa mën naa am sax bu dee gone sawukaay bay nàcc lu ci mën doon ndegam teel na ko wax fi saasay saasa moom deesu ko géttan géttanum njaaloo moo xam ëmb na moo xam amut ndax dañuy jàpp ne jigéen daal warta ñàkk kersa ba mën a dikk di jàmbat jàmbat gu mel noonu ñëpp di ko war a ko yéem ak aw seet loola daal ne gàcceel na boppam teg na boppam coow dana tax kenn du ko géttan géttanum njaaloo moo xam ëmb na moo xam ëmbut ndegam nag li mu wax waa ju baax ju ñu xamee rafetu diine la ko waxal dañuy wute ci ndax warees na koo caw ngir li waxal waa ju baax jooje wala waris koo caw ibnul xaasim ne warees na koo caw te mel ne ne ku yebu jàpp jooju wax ndax ndegam kooku noonu ak mbaax rek lañ xam ci moom jigéen ji mën na ko tuumaal ci lu mel noonu te dara amu ca kon nañ ko caw cawi xas gam xas waaju baax joojee waaju baax ja nag moom ba tey kenn du ko wax dara de su ko waatloo ci boo toppee Ibnul Qasim rawante na di ko jéem a loo can xel xalaatu ko wax ba ca des dane ndegam jigéen ji moom xaw yi na sutura su boppam ñu waxe ko nii fa saasay saasa deesu ko géttan géttanuk xaste mooy dee su ko caw ay yar ngir la mu waxal ju baax jooje waa ju baax ja kay lañ war a woo mu waat miim lii nga xam ne moom la ko jigéen ji waxal su fekkee ne waat na ñu bàyyi ko mu dem su fekkee dafa ragal a waat nag ñu ne jigéen ji yow waatal li nga wax bu waatee itam waa ju baax jooje war ko jox can ndax dagam ragal naa waat te jigéen ji ñeme naa waat moom war na koo jox kon can ak lu mën di am nag di tax ñu géttan waaju baax ja ngir ragal gaawaat ndax bul fàtte ne lay saxal njaaloo moom dafa jafe njaaloo balaa sax kooku da koy waxal boppam wala ñeenti seere gis ko gisin woowee nga xam ne néewaana mu am tasee noonu ñu ko waxe wala boog muy jigéen ju amul jëkkër ba noppi jekki-jekki ëmb lu mel ni nag kon can ga rek lay fay waaye kenn du ko gétan balaa yaari wax am foofu ñeenaa daañu caw jigéen ja cawi xaste ndax la mu waxal waaju baax ja ñeenaa deesu ko cawkat day fekk rek jigéen ja ñu xam ko ci bëgg sutura daan wattandiku xawi suturaam waaye bu ko xawee muy koo xam ne faaliwul dara ku ñàkk ñàkk solo la amul lu muy faale kon moom ñëpp a ci daañu ko caw juróom-ñetti fukki ndax lam waxal bu waaju baax joojee te waaju baax ja kenn du ko woo di ko waatloo mbaa dara foofu moom ñëpp ci marché dafa jàll di wax bu jigéen ji ne góor sàngam dama siif joteeg man te kooka nekk koo xam ne xamunu mbiram xamunu da ku baax xamunu da ku bon waaye nag bi yoon moom da ko wax fa saasay saasa li wutale fii ak fa nga weesu mooy bi yoon da ko wax fa saasay saasa benn ma nga jàppandu ca moom di jàmbat mbaa mu ñëw jàmbat noonu bu dee gone mu wane sawukaay muy nàcc ak lu ma di am daal tomb bi moom mooy fa saasay saasa lu ñëw daal di koy jàmbat mu nekkoon jigéen ji ci bopp la ñuy seet ba xam kuñ xame ak mbaax la mbaa kuñ xame ak bon la bu dee kuñ xame ak baax dogu nañ ci ne deesu ko géttan géttanu xaste ngir la waxal kookee bu nag jigéen ju bon nga xam ne ak ñàkk a sàmm boppam rek lañ xam ca moom dañ caa wuute ci ndax warees na ko caw ngir li waxal kookee wala warisu ko caa caw boo toppee wax ba wax ne warees na ko caa caw ndax setal derub kookee mu tooñ mbaa bokkam waxal loole yàlla xam la ca biir ko toppi wax jooju moom amut loo cay dolli tey daamel ne topp wax jooju moo gën a wóor ndax bul fàtte ne kam ni moo ko siif day ku nu umpale mbiram xamunu ku baax la xamunu ku bon la te moom mii xam na ne jigéen ju bon la ña nag ne kenn du ko jëtan ngir rekk seet ni mu gaaw ñëwe ak ni mu toroxale boppam ak ni mu weere boppam ñooñu am na way wuy ñëw ca kanam woo xam ne fii la ko waroon a sësale bayit woowu teel naa ko jàng foofu su ma àggee fañ ko indi du ko baamuwaat jàppal ne fii la war a sës ma sësale ko fi ñoom ñu wax ne deesu ko gétan ñoo wax ne dañu woo kam tuumaal ne ko waatal miim lim la tuumaal su kooka waatee miim daldi dem waaye nag su ragalee waat ñu ne jigéen ji yow waatal li nga wax su waatee rek ñu ne góor googee war nga koo jox can moom lay wax naa waxalaa suqooti haddil xasfi xanha fa alayhi lyaminu annahu maa wati a wala yalzamuhu sadaqun fa innaka la xan xan qalabat alal marati daa bëgg wax fa innaka la xanha in qalabatil yaminu alal marati fa taxlifu wa yalsamuhu sadaaquha dafa jàll nag ci tom bi ci mujj mooy jigéen ji kam wax ni moo ko siif jaaloog moom day ko ñu xame ci bon aku kàccoor ci mbir yi demee noonu rekk kon moom bu teelee ñëw wax ko fa saasay saasa maanaam jigéen ji dafa ñëw jàmbat fi saasay saasa ne diw dama siif moo xam nag dafa jàpp ci moom poñe ko indi moo xam dafa ñëw rek wax ko waaye daal teel na koo jàmbat moom fa saasay saasa te bu dee daaw googoo jàmbat ak noonu nga xam ne moom la weere boppam tax na kenn du ko gétan ci genn wet buñ ko gétoon ngir ne na ak doonte sax gannaaw ba dafa ëmb duñ ko gétoon it ngir ne dafa xas ab jàmbur ndax ndegam kooka moom ñëpp xam na ko ci bon ak def lu mel noonu wax rek ne dafa def loola ne ko tullu yàq deram ndax moo yàqoon ab deram ko jekk moo tax jigéen ji moom deesu gétan ci genn wet duñ ko gétan gétanu xaste duñ ko gétan gétanu njaaloo lañu wuutee kay mooy ndax kookee mu tuumaal war na koo jox can walla waru koo jox can am na ñu ne kooka war na koo jox can am na ñu ne déedéet waru koo jox can ndax ak lu mën di am rek tuumee kese la ñu wax ne war na koo jox can dañu ne faawu jigéen ji day waat njëkk li wax ci tuumaal kookee da koy waat ba noppi kooka door ko war a jox can am na it ñu dogu ne moom kooka war na ko jox can te du ca waatante wax ji gën a wër nag mooy bu ko dee jox can tam moom waat ga du ca mën a ñàkk faaw mu waat ba àggal ñu door koo jox can ga xam nga yaa ngi toll ci bi jigéen ji tuumaalee góor goo xam ne kàccoor la xam nañ ko ci dox tànk caaxaan yëf njaaloo day ñaari tomb nag ba mu ko teelee wax mooy li nga weesu léegi nga bii nga toll nag mooy ba mu ko yéexee wax maanaam daal waxu ko fa saasay saasa su fekkee ne day ëmbut kenn du ko géttan géttanu njaaloo waaye su ëmbee moom daañu ko géttan géttanu njaaloo kitanu xaste nag moom kenn ku ko def mukk ngir kam tuumaal day ko ñu xam ci kàccoor ak dox tànk caaxaan te nag xos yàq deru boppam gannaaw ba gu yàq ab deram it du tax ñu caw ko ne dangaa yàq ab deram ndax moom fekkoon na mu yàq deru boppam bu ëmbee nag bañ ne dañ koy géttan kon moom kenn du ko jox can gu googee mu teg tuuma ji nag moom la jàpp dugal ca kaso ba di ko enquête di gëstu mbiram ba xam dana leer ne li ñu koy tuumaal moo ko def wala defu ko su fekkee ne seet nañ seet mënuñoo xam ca mbir ma dara dara dara kon dañ ko wax ne ko waatal miim lim la tuumaal su fekkee waat na ñu bàyyi ko waaye nag su ragalee waat nag ñu ne jigéen ji yow waatal dëgëral tuuma ji ko teg su jigéen ji waatee rek góor gi daal koy war a jox can waaye bul fàtte ne jigéen ji moom boo xasee ëmb ca loolee dañ koy géttan géttanu njaaloo ba noppi te deesu ko jox can moom la saraa bi naa wa thaniyatuhuma iddi xaa uhaa xaleehi baada zamaan fa fi haadihi alxaala yasqutu anha alxaddaan maa lam yadhar biha xamlun fa in zahara xuddat li zina wala sadaaqa laha fi haadihi alxaala tumma in alqaadiya yajtahidu fi iktishafi amri alfaasiqi fa yasjunuhu wa yajxalu man yatajassasu an xaalihi fi sijni fa in tabayyana shay'un